guys. Zia zia Zazera tambo kete noti. lu ne leen jaar nañ leen fi ngeen daal nuyoo waaw di leen wax ne tey dañu déplacé wu ñëw ko fii ci Guédiawaye Baxdad France plus précisément ñoo ngi tout près de marché Pes seen émission waajal combat mbër mi moo doon open press man maa tardé waaye nag fallait ma seqal moom question réponse Douglas la ñëw seet si promotionnaire de l'école de Lansane dans les meilleurs de sa génération bokk na ci li dàq bëri ci ay moromam bi ngi war a bëre le dimanche dimanche 14 juillet à l'arène nationale Ilimando à la tête de la chimie Ndiambour production moo fa jaar Douglas wala jàkkaarloo ak kan fils de Mbaye Gueye gars yi nee nañu ñu bëri ñu bëree bare bare nee nañu jour J combat boobu mooy seen combat parce que ñaari jinne lañ boole Douglas ak fils de Mbaye Gueye Douglas daa toogal nii sëñ Mbaye Gueye. waaw alhamdulilah bisimilah. waaw waaw waaw

waaw gars yi moom li ñu wax loolu garaawul quoi parce que làmb ak loolu ñoo ànd waaye man man xam naa xam naa bu baax la ma war xam naa bu baax li ma mën a li may xaar moo tax Fils de Mbaye Gueye coow yu bëri na trop dara bëgg mu dem waaw gars yu bëri yu ba ñu tëjee mën a ñëw ci ci barrière yi. waaw waaw fekkee naa lépp waaw kàddaa ba jëm moo fa des quoi foofu waaw te jëm naa ngaay gis. noonu la fa demee jënd ay combat yi la tey nga dee nga dem bëri génn ci mais bii ki ngay bëreel dafa dugg sa koñ dugg sa koñ dafa dugg géej waay dugg sa koñ bëri fi bëri jinne bëri ak beneen jinne bu ñaan fils de courant fël boobu noonu ñu bëri combat bu métti bëri teg teg yi bëri bay bëri ci kaw air bi waaye ba fa muy mujj fils de mbay gay daan fils de courant nga dégg da ngaa mer wala nu mu demee noonu da ngaa mer wala. non non meruma sax sa koñ la dugg na fa. waaw loolu du fee fils de courant daanaan la champion la. waaw waaw nangul nañ ko loolu. waaw waaw bés boobu dafa waroon ñàkk quoi moo tax mu demee noonu waaw. du ko ñaanal mais man sama bopp laa nekk man Douglas en chair et en os maa ñëw pour lijjanti fils de courant. yow yaa ñëw pour lijjanti fils de béykat. rek la ñu ko dernière victoire am fii la ko mais benn tache noire bu mu carrière am Guédiawaye la ko jëlee daf ñaar kon di dëkk fii France fii Sorès. Sores moo këpp yalwaanam benn défaite am plus de benn défaite Sores moo ko daan 6 combats 5 victoires benn défaite. est-ce que du tamit day ñëw pour fay suba bii dafay wan leen ni bu ma seen morom benn tasse noire bi mu fa jëlee danañ wan ni ah, erreur la woon yéen waaye maa leen mën a gis léegi loolu la ñëw. tasse noire bi moom ci delluwaat ci delluwaat incha allah koo teg noonu. fu ma ko teg mooy li nekk ci man laa xam quoi liggéey naa li mu Demba Gueye dàq bëri. Demba Gueye maa ko dàq bëri. foo teg loolu. maa ko man man maa man maa ko xam. wala fi ma ko teg mooy dama kaa mën. yaa ngi ko gis Demba Gueye. yaa ngi ko gis. Douglas ni ngay waxee comme toujours ah comme toujours comme toujours confiance day dégager. je me rappelle sa premier combat arène bi bëre daal sa diggante si kër bu ma ñëw fi jël si la nga ne ma grand bi ah, damaa juum erreur la te erreur bi dama koy rectifier ma ne la dafa amee bor si bor yi nga ne ko bor bi dama koy fay ko tuuti da nga ñëwee noonu nga def da ngaa bëri daan daan daan ñàkk nga ñëwaat bëri daan daanaat te ki ba njëkk na logique bi euh, bi nga nekkoon ba tey yaa ngi ci mais confiance bi ngay tegaate sax combat gëm nga ne sa morom boo jàkkaarloo ci biir yëpp yaa ko mën confiance boobu fu mu programme bi juddoo fenn juddoo ci li ñu tegoo rek ñu tegoo nangu ko faral di ñoo jël suñu nekk jox ko ay mag ñu téye ko maa ngi dégg maa ngi dégg ay waxam nag xas na ko waa ba xas si ma école waaye dinaa ko dinaa dinaa toll si ma école la 14 incha allah. le 14 di ko toll. dinaa leen dinaa toll ma école yi 25 waaw incha allah ñëpp laay toll ñëpp laay topp di jàng. bu arbitre bi sifflé mu ne la man mooy yi Pikine laa yéen waaye mosuñu rek waa Pikine yéen waaye yamuñu Pikine. Pikine mooy bu Géejawaay. dégg nga Pikine mooy bu Géejawaay. yaa wax ko. maa ko wax bu arbitre sifflé mu xool la ci biir bët dara mooy Kadioura day chancé li tàkk la tóor ak teel a teel ma ne Kadioura. bu ma ne Kadioura waaye nañ ci bokk ci raat ñu taxaw deewoo bu fekkee cinq minutes deewoo la bëgg ñu deewoo. cinq minutes. deewoo cinq premières minutes. deewoo ngeen deewoo ko. étincelle yi tàkk. waaw abar bu ci bëree abar ñëw yëpp jinne. ngeen bëree waaw comme nee na bëri la moom moom ndax bëri mu ñëw fekk seen mën a moom ñu bëri te xam naa ne bu ñu bëree maam incha allah yàlla. Douglas sa koñ nga nekk xale bu sax bu ndaw xanaa sa xale bu ndaw mais yàlla na tool a bëri de yàlla na tool ay soppe yu bëree bëree bëri open press bi open press bi wane na ko ba nii ni open press bi jeex na mais gars yi ci kër gi di yëngal aji ko yaa ngi dégg moom ñuy tëdd Euh, loolu noonu lan la lay def léegi xale bu ndaw yàlla lu ci war a bay rek. bari ay soppe loolu lu lay def. waaw li may wax nii. sas na rek sas na ndax man damaa jur nekk taw. nekk seen daal gis sama situation bari nekk ak sama yaay. ngay gis ni xëy dañuy dem sama papa la même chose. ma nekk ci lu bari ma jàng bàyyi jàng juróom ma jàng métier ma jàng métier jigéen métier dem di football yi xam nga jógee si ñëw ci làmb. dama dugg si làmb nag dama ci làmb pour lekk ay million ndax damaa war a teral ay nit waxuma dama war a teral sama waay dama war a teral ay nit da dafa am ay nit ñoo xam ne dañuy sonn ngir mën di léegi nag révélation ah, ma wax ko xaw ma nag ku mel ku mel man moom li ma gëm laay wax. Fils de Mbaye Guèye moo la ciblé. da laa ba bële nii ah Douglas la ciblé dafa gis te a bëri. mais gëm na ni yow sa bëre jaaxalu parce que moom moo la si woo ne ma Seydina ma ne ko naam bëgg suñu combat ma ko Douglas sa potentiel adversaire la bi soxla combat bi na woo ma jox ko numéro Douglas promoteur bi ma Iliman Lo dama numéro dafa pare nag pour teg la tegal la lu métti dafa pare pour won la ni booy naan ñoo fi daax a bëri moom Fils de Mbaye Guèye moo leen dàq bëri Fils de bi. bu fekkee bëre la bëgg kese. dina fi fekk pàq. bu fekkee bëre kese la bëgg dina fi fekk pàq. Hmm. waaw loolu mën naa ko waxat moo ko sax c'est que dafa di. dafa am loo xam te ne moom lay dégager. lan ngay dégager moom ngay incarné moomu yaa mën ñëpp. donc mënuma ñëpp. waaw loolu lan ngay incarné looy dégager. xam li nekk si man am gëm bu mu am mu am loo ko war a réaliser quoi laa ñëwaat sa jour mooy bi xam ne sama waa ko ñu leen man la. dangaa war a dem damaa war a dem man la. di suñu école. waxoon naa ci ñu fi mujjee ñëw bi naa faa nekk xale. nekk ak samay mag. ñu ma teg ci yoon su ma juumee sax ñu gàggante ma waaw te loolu c'est à saluer quoi parce que mënoon na la cee bañ a fekk maa ngi leen di remercier bu baax a baax di wax ne nag fils de Mbaye Guèye ni mu def ba dëkk ma waroon naa mën a tam ne moom ma laaj quoi non man man moom maa wax ne moo la laaj loolu mën naa ko wax loolu dama ci am lu ma leer parce que man la jaar moom moo la laaj loolu garaawul waaw mais dalaa laaj pour wàccee la pour kii bi. incha allah day day mu nekkoon sa koñ fii sa koñ. interview ngi gudd sax. mais sa koñ ay ndaanaan dañ fay dañ fay juddoo yaroo fi màggee fi. mën a bëri aliya bii rek. waaw bii rek xoolal yoon bii rek tout voie bii rek nii rek ba ci kaw nee. ay ndaanaan parce que fii dama fay yàgg. waaw 2008 2009 maa mm. mais sa grand frère yooyu xam ne dañu mënoon bëri am doole am mbooloo mën naa ne kenn génn ci dañoo bàyyi làmb kenn par yéen ci beneen vague ngeen bok benen génération li yakal sa grand frère yoy est-ce que am nga instant bi ay grand yu taxaw sa met di la xamal ne kat, ni mo yàqoon carrière wala kat bu mu jaaree fi ay ko la ci jëlee est-ce que am nga ay grand yu lay tektal fi ngay tek say tan sa grand frère yoy fi ñu jaar ba sen carrière bu soxé yow nga bañi a ci lo waaw ko ni ma la mo nekk ak say mag ñu nekk ay ndana yu bari kat mhm. gaay dépenser len teunk do dépenser mo len teunk mo tamit tax a jël parce mo rek ñun nag ñu ñëw defal ñun nit ñi li tax ñu bëgg ñu te dul wan leen yar ak teggin rek waaye bëgguñu seen bopp di sonn ngir ñun damay jox exemple sama turandoo bu baax di loolu rek ñu jóg di dangi dangi di dem fu nekk di lijjënd lu nekk di moom de am na yeneen grand yu fi nekk ñoom Gora Mbaye ñoom Modou Lo xam nga Lo mooy Ibaas waaw ñoom suuj suuj waaw bu leew na ak gaayam yëpp waaw ñuy songu sama combat ñoom Baro ñenn gars yi ñoom ñëpp. boo fa jugee ñoom Papa Thiam. waaw gars yi dañuy sonn xam nga dañuy wax lu ne boo Thiam ak coach yi xam moom laa rek te Baraat ay rawul dë fi mu nekkoon ay atu ma atu atu lu mu def ay ceer dë fii xam na Baraat mhm. mais tey xëy na ñoom yàlla tudd ngeen ci ñoom lii quoi tey yàlla ci ñun la ko tudd mhm. sas bi sasoon nañ ko yan bi yenu nañ ko te incha allah comme ni ma koy waxee rek yan bi fépp fu mu war a yegg rek